Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Serin bini lay Delon yo bakta de la fain yo Dikiti kadu gici Kau ndik lul serin bi Sahab Muhammad al-Murtada mbake Minga khamni ammu ya khalifah Ibn al-Qadir mbake Farimata lo Minga khamni ammu ya khalifah Ibn al-Qadir mbake Minga khamni ammu ya khalifah Jabatul Sini Abu Khadir Mbakke, kenal ayam agam tamu dek saya Muhammad Damia kami, moy wajur serigne fallu jumaade mi ñu taxa a tay jaar ko ci suñu wajur serigne Mouhamadul Mansour Mbacke ak serigne Abdoulahi Mouhayminu tay mu tok sen jotaay ñom ñi ñu ñaan mu yag fi lol tawir gëna lol itam ci tour serigne cheikhuna mi nga xane moy rakam ak serigne Moussa mi doom moom serigne fallu Jumaada jëmm ji nak buñ ci bëgge wax dañuy wax na ñu koy jaal wa aduna kan lañ leen di jaal moy ko xamne njariñam àdduna sépp ñoo ci jot muy ab julit xaqan bu jëfe lislaamam bu wér di ab taalibe boo ne sàmm nag taalibeem bu wér ak njulitam jàkkaam ji seere la ci tey nga na liñ fi wàcc ci kaamil kenn xam nu mu toll ngir liggéey gi nga ko liggéeyee tam sell te yàlla tax ndax jàkka boo ko tabaxee ngir yàlla faaw ñu fay jaamu yàlla ngir yàlla loolu nag tey bisab teyam bii wane na ko kon ab jullit la bu yor bu jëfee lislaamam taalibi la boo xam ne itam ak taalibi dara des bi ndax ak bëggam sëñ Tuubaa ñi ko xam ñëpp mën nañ ko seede bu baax a baax ak liggéeyal sëñ ci anam gu nekk ci delloo si taalibe ak teg leen ci aw yoon ak yar leen ak jubbante leen waaye di mbokkam jullit moo xam ne mbokkoon a waa lislaam ñëpp ku nekk lam man ci ak jokk ci rafetal def na ko waaye rawatina bokk yi nga xam ne ñooy bokki meenam ak bokki deretam ñooñu jëriñ na leen njariñ loo xam ne fu mbokk fu mbokk mën a yem ci njariñ fale leen àgg na fa ak ñoom ci alalam ak cim xelam ak ci darajaam doonoon nit ku woyof koo xam te ni bii lum la mag mag mag su la gisee jàppi na li boppam doon koo xam ne jotaay bu mu toog nit ñi danañ sawar toog ci jotaay ba dax kaf ak ree la fay nekkee ba keroog muy jukk amul fenn fu mu toog foo xam ne nit ñi duñ bég nit ñi duñ ree ngir jàmmam ju bëri ak njëriñam lu yaatu jëmm jooju nag ay jikkoom lim mënut a jeex waaye dañuy wax ne bu seetee ab julit jàpp ko bu ñu waree taalibe andi ko bu ñu gisee mbokk mu dundal ak mbokk te suturaal ay bokkam te jàppale leen andi ko dañu am yaakaar ci moom loolu nag ndax yonente bi sallallahu alayhi wa moo wax ne ku suturaal sa mbokkam jullit yàlla suturaal la te moom suturaal na ay jullit ba taay wax ne itam ku dimbale ab jullit sa borom dimbale la kon yaakaar nañ ci moom na ko yàlla defal. kër gi am seen xel day dal lool da xam na ne yitte jooje bu ase ci moom incha allahu taala dana ko saafara bu dee loo xam te ne bi nekk na ca moom bu dee alal koy def moom dana ko dana ko def bu fekkee am xel koy def moom dana ko def bu dee wàcc darajaam a koy def moom dana ko def kon lépp loo xam ne maanaam mbokk yi mosoon nañ ko soxla ci lu baax seen xel moom la daan daj te bu jikkee mu def ko te li gën a neex ci sëñ Fallou kat ci rafetu jikkoom mooy mépp mbir moo ko wax moom da cee rafet jot loolu xam ne yow lu baax la tax a jóg donte li nga wax juum na sax dana xam lu baax la tax a kon kii la ñu ñàkk lislaam ñàkk ko diina ji ñàkk ko yoonu murid ñàkk ko ñi ñaan ñëpp ñaanal ko suñu borom jégal ko te yërëm ko ci barkab Sëriñ Tuubaa wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu waaw li jot li kàddu témoignage moom rek tamit yu dëgg yoo xam ne wama sañ naa ilaa bi ma xalim naa lay doon ndax lu ñu dund la loo xam ne ndax ba muy sañ ci jumaa dax ci ndaw yi ñu ko joxoon ñu ànd la te ba fii ñu mësuñu tàqalikoo doonoon ko bëgg njaboot ku bari yërmande ku am jëm ku nangoo liggéey ku bëgg lu baax xàmmeewutoon doom xàmmeewutoon rakk xàmmeewutoon jarbaat daan wax ne daara ji ku ci dugg daal sarti daara ji boo ko defee mooy nangoo jàng yaay doon seex bi ku mokkal mooy sa passeport foo bëgg a dem dem ñun ak ay doomam ñoo daan bokk lu ñuy tëdd bokk na ci jikkoom it li ma ko xamee woon mooy mosuma gis Sëñ Fallu ñu beral ko ndab moog waa kër gi ñëpp ñooy bokk benn añ ñooy bokk benn reer te léeg-léeg ñoom mi xaw mel noo xam ne ñun dongo yi sax dañ koy kaas loolu nag ak bëgg lu baax la waaye ak defar nit la daawut tere it nag waaye daf lay wan lu baax wan la lu bon ne la boo bëggee jariñu yoon wi jëm lu baax a ngi nii soo bëggutu jariñu yoon wi jëm safaan baa ngi nii yar nag yee la bàyyi la loolu nak jàpp naa ne moy defar doomu aadama daana waxe ne nit duma ma alal di may dama koy jangal ni ñuy def ba am nit dal na jang xam lim wara xam lepp nangoo liggey mën jariñ bopam mën jariñ kum mu bëgg jariñ ci loolu la doon dundu ci loolu la ànde won ak ñun ci la ànde won ak mbollem jabot gi ba ni ko fi yalla jëlee ñu ñaan yalla xari ko ci kawm tabal ko aljana fi do ci am nañ ci yaakar lool ndax ku bëggoon mbokk la waye ni mbokk non la nangoo wana son ci mbirum talibé maanaam xàmmewu doon ab taalibe ab jullit la daan wax bu mbir jotee it amul ku muy waxal ak ku muy bàyyi ku mu jot rek doyloo na la daana dénkaane alalam nga bay ko ba mu ñor ba peese ko ba jaay ko ba jox ko xaas bi te du la laaj ñaata la loolu nag ak maandu la ak doylu la xam naa ngir bañ a guddal ndax sëriñ bi buñ ci doon wax fii ba suba duñ jeexal ndax ba muy samp kër ba fii mu ne la ñoo ànd kon lépp xaju fi waaye nag dañuy tënk foofu rek ndax am na ci loo xam ne xol mënu ci àgg ñaanal képp koo xam ne yëg na ko nga ñaanal ko yàlla atte ko ci yërmaandeem tàbbal ko àjjana firdawsi wasalaamaaleykum wa rahmatullah